lii mooy euh, sunu militaires yi sunu policiers yi tey formation policier la ñuy dem sur les théâtres d'opération n'est-ce pas généralement du leen di impliqué ci ay ay actes ay délits abus sexuels donc euh, Sénégal mu suñu impliqué benn policier ou soldat sénégalais ci loolu euh, maintenant formation bi day continuer hein Sénégal musu ko impliqué ça ne du ñu tëdd nelaw il faut que ñuy former di former maintenant l'ONG Femmes Africa Solidarité moo organiser atelier bi tey moo organiser atelier bi tey donc euh, suñu nos hommes sont là c'est les policiers qui sont aujourd'hui tey ñun ñoo aaye police donc euh, on a un certain nombre de de candidats qui sont là qui seront formés lu ñuy formé euh, atelier bi pour ñetti fan la tey suba ak gannaaw suba Euh, ay experts ñoo fi nekk pour former leen ci vraiment ñu moytu euh, abus sexuels ci terrain d' opération yi Sénégal nag ñun suñu force c' est c' est des gens bien formés. depuis bu yàgg yàgg yàgg ñi ngi déployer ay nit sur le terrain mais mosuñu leen taxal si yooyu donc ça veut dire que même à part cet cet atelier atelier pour formation pour yokk la yokk rek la mais dans nos casernes les gens sont déjà bien formés. bu ngeen demee mission xam nga góor góor rek la jigéen jigéen rek la ah da ngay dem dajeeg fa at lu nekk n'importe quoi donc euh, importance mooy nit ki ñu formé la. nit ki suñ ko formé bu baax am une bon formation je crois que mën a dem si terrain d'opération bu nekk. parce que actuellement résolution 2272 dafa nii soldat wala policier bu ñu jàpp kenn rek suñ ko jàppee ci yooyu contingent bi yëpp lu ñu delloo. donc euh, il est important que suñu nit ñi ñu former leen. kon lii gën a sensibiliser gën leen sensibilisation la sensibilisation la voilà. au delà de la mission yi euh, mon commissaire est ci ci tout à fait tout à fait. tout à fait il y a de modules hein, sur les droits humains sur le droit international humanitaire yëpp am na merci. waaw dinaa waaw dinaa wax tuuti dinaa wax waaw. waaw xanaa rek pour wax que ni vraiment kontaan nañu euh, ci réplication formation bi ñu am tey Thiès euh, di ko defal euh, waa police ak unité yi nekk police formation bi nag day fàttali rek li soldat bi war a def ak comportement bi mu war a am ci ci terrain bi. pour que dara ko dara du ko euh, dara du ko laal euh, nan lay nan lay toppatoo jigéen ñi parce que xam nga euh, terrain des opérations moom jigéen ngay gën a kii ñu nekk ci camp yi ñoo nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci front bi après après conflit bi donc formation bi day rappeler rek lan mooy genre lan mooy égalité bi ñu war a am ak euh, nan la ñu rectifier pour que jigéen aussi mën a euh, mën a am seen wàll euh, ci protection yi jigéen bu vulnérable nag da nga koy da nga koy des fois ñemee laal donc loolu aussi la ñuy xool que ni am na règle boo demee di sauver ay vie boo demee di protéger ay nit doo leen abuser doo leen doo leen doo doo doo doo doo waaw doo leen sàkku donc formation bi tey formation police la dinañ ñëwaat pour former aussi armée bi ak former agent euh, gendarmerie yi fi nekk dinañ dem Thiès dinañ dem aussi euh, Kaolack euh, donc li ma ko mën a waxee daal c'est que l'organisation ak partenaires yi projet bi ambassade de Grande-Bretagne ak ambassade de Grande-Bretagne moo koy financé ki ko ci jàppale nag mooy ambassade du Japon au Sénégal ak am nañu aussi partenariat wu jàppale euh, Union africaine le bureau bi Union africaine créé depuis 2014 di jàppale jigéen ñi di liggéey ci ci paix ak sécurité kooku aussi mi ngi ci mi ngi ci ñun mi ñu jàppale euh, donc ñu nekk fi rek pour euh, mëne programme bi pour que vraiment soldat bi officier bi buy dem ko muy jigéen muy góor mu rappeler que ni dafa ñëw pour projet civil bi mais warul ñëw pour pour gën a yàq euh, surtout que léegi bu yàqee kenn ku yàq rek dañuy dàq contingent bi yëpp donc loolu moo tax euh, formation bi am importance. Sénégal waaw Sénégal nag xam nga ni moom modèle la modèle yi ci li ñuy wax moo tax ñu war a commencer fi xool seen bonne pratique yi ak euh, seen leçon yi comme ça après gën ko defaraat après mën ko yóbbu ci yeneen dëkk yi. réplique ko nag a ngi leen xalaat. waaw ñu ngi leen di xalaat parce que booy booy former officier bi booy former soldat bi aussi il faut Euh, soldats yi kenn ku ci dem da ngay yàgg mission yi léegi un an la ñuy def donc euh, dinaan waxtaan ak ñoom aussi mooy deuxième phase du projet bi pour sensibiliser pour aussi ñoom ñu mën a jàppale seen jigéen euh, seen seen jëkkër ak seeni ak seen i jabar bu bu ñu bu ñu nekkee ci mission bi. donc approche bu kii la daal approche globale daal lañuy def pour que ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci war a ñoo ci war a jàng ñoo ci war a sensibiliser wu ñu def ko ñu def ko waaw loolu. waa statistiques nag waa comme ni ñu ko waxee Sénégal moom 3700 hommes lay lay en moyenne lay lay lay déployé euh, mi ngi nekk septième rang euh, mondial euh, nekk troisième rang au Séné en Afrique. Euh, et même euh, euh, cinquième rang en Afrique kii Afrique ouest bi mais ce qu'on peut dire aussi c'est que cas de violence yi am na ba léegi ren bii rek am nañu 44 cas de violence boo xam ni Nations Unies mi ngi nii di ko di di ko examiner mais cas bu nekk nag li ngeen li li gën a am importance aussi cas bu nekk c'est que bu amee cas rek amatuñu sax temps daan dañuy seet dañ lay détacher. Euh, nga nga ñibbisiwaat. donc euh, donc comptage yëpp la ñuy dàq. moo tax aussi statistique yooyu baax parce que saa yu ñu ko identifier rek dinañu mën a jàpp pour ñu jigéen ñi ñu mën a plaidoyer donc programme bi aussi programme mu jigéen ñi la société civile ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def pour rek jàppale. organes yi nga xam ni Nations Unies ak ñeneen yi nga xam ni ñi ngi former déjà militaires yi mais ñun li ñu indi ci formation bi ak li ñuy indi ci formation globale bi rek mooy la dimension genre mooy l'inégalité sociale qu'on sur le terrain et qu'il faut vraiment euh, qu'il faut euh, kii euh, jàngale ko wone ko góor ñi jigéen ñi xam yëpp kon loolu am na comme ça bu ñu demee ci ci ci terrain bi ñu mën a ñu ñu mën a xam nu koy nu koy toppatoo ak nu koy ak nu koy defaree. merci